allahumma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaanaa bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nushuur Rewmi FM 97.5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 buur yàlla tabaraka wa taala mooy buur bi ñu xëywalal ñaari xëywal ya ñuy faral di fàttalanteeg mbokk yi ndax moo ñu ne ci alquraanul karim wa istaazana rabbukum la in shakartum la azidannakum fàttalikul keroog sa boroom di yàlla buur bi tabaraka wa taala moo leen xéewalal moo leen baaxee la nga xamante ne mooy moo leen jox ndigal bu toll nii mu ne leen la in shakartum la azidannakum bu ngeen ma sante ci xéewal yama xéewalal dina leen yokku la nga xamante ne mooy xéwal yama leen dottil ba tax na noonu la ñuy fàttalanteeg mbokk yi xéwal bu ñu yàlla buur bi tabaraka wa taala bari nañu lool ba léegi moo ñu ne wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuuha bu ngeen fi nekkee di lim xéwal yaleen yàlla xéwalal du ngeen ko musa peeg di ngeen ko musa matal ba tax na buur yàlla tabaraka wa ci xéewalam yu matal yamu xéewalal doomu aadama bi mu xéewalal ñu ñaari xéewal yoo xamante ne benn bi muy xéewalu jaamu yàlla bañ doon def ci ginnaaw tuuti waaye weneen xéewal bi mooy xéewalu nelaw bi nga xamante ne yàlla wërsëgal nañ ko ñu jóge ko ci nelaw ci waxtu su néew ci ginnaaw ñaari xéewal yooyu buur yàlla xéewalal ñu bu ci jiitu mooy xéewalu ibaada mooy xéewalu jaamu yàlla ba ñu yàlla wërsëgal ñu joxe waxtuy julli fajar wala waxtuy julli suba si jamono su néew ci ginnaaw kon ñu bokk sant yàlla gannaaw bu ñu yàlla wërsëgale ñu teewee julli fajar wala julli suba ci mbooloo gannaaw bu noddukat bi yëgloo ne julli de moo gën nelaw ba di nelaw noonu lañu suñu boroom tabaraka wa taala jàppandalale ñu daldi waajal suñu jëm dem joxe waxtu soo xamante ne mooy waxtu bu njëkk ba ñu war a mën a rencontre ak moom yàlla buur bi tabaraka wa taala ci la nga xamante ne mooy waxtu julli fajar woowu waaye bi léegi bokk na ci xéewal yooyu xéewal yum ñu xéewalal mooy xéewalu nelaw ginnaaw bu ñu yàlla buur bi tabaraka wa taala jàppandalale ñu dallu ci jàmm ñu nelaw nelaw bi ci jàmm ba ñu yeew yàlla boole ñu si ñu mu delloo seen ruux kon war nañoo sant yàlla ci xéewal boobu ñu defal subhaanahu wa taala ndax xéewalu bu njëkk ba ñu yàlla xéewalal mooy xéewalu waxtu yu julli fajar ba ñu joxe ci waxtu su néew ci ginnaaw la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxee askanu julit ñi mooy xadis bam ñu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam abushiru yonent bi nee na sahaaba yi waaye mu ne mboolem askanu jullit ñi ne bég jàmm la na ngeen am kontante bu toll ni fii rek ngeen ko war a mën a amee du ngeen am kontante boobu ci leneen lu dut la ma leen bëgg a wax ci nii kon yonent bi ne askanu jullit ñi ne leen abshiru na ngeen bég abshiru ma ngi leen di bégal ubashiru ma leen di bégal di leen wax mbégte nouvelle bi nga xamante ne amul wenn nouvelle bu ko gën a neex kon nangeen bokk déglu lañu suñu yonentu bi bëgg bégal sallallahu alayhi wa mu nekk nouvelle boo xamante ne keneen ku moom amul kenn ku ko bëgg a wax amul kenn ku ñu ko mën a wax tamit ndax Noël bi amul kenn ku ko xam du scientifique moo ko xam ba tax na mooñu ko war a wax déedéet du gisaanekat moo ko xam na moo ko war a wax déedéet du boxaaba moo ko xam ba tax na moo ñu ko war a wax déedéet kii ku ko xam mooy ar mustafa mustapha sallallahu alayhi wa ma yàlla ne wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin kii la yàlla wax ne yonni ba ma la de du dara du lenn lu dul yërmande ak mbégte ak jàmm ak yiw ñeel mboole mbindaafoo ni boobu mooñu ñu ne ubashiru maa ngi leen di bégal lan lañu yonent bi bëgg a alayhi wa képp ku bëgg a xam la ñu yonent bi bëgg a fii ci maanaa hadis bi nang ñu may nopp waxtaanu fajar bay jaar ci Rewmi FM 97.5 ci waxtu wi yonent bi ne ñu ubashiru maa ngi leen di bégal abshiru bég lii de li ma leen bëgg a bégal rabbukum seen boroom la de waaw li leen bëgg a bëggal li ma leen bëgg a ci nii haada rabbukum ci li seen borom de qad fataha baaban ca dégg dégg ubbi na bunt boo xamante ne min abwaabi samaai ci buntu asamaan yi yubaahi bikumul malaaikatu mu ngi nii di leen présenté ca malaaka yaquul muy wax ne unduru nangeen ngeen xool ila ibaadi ci sama jaami qad qadaw faridatan ca dëgg-dëgg farata juli wa hum yantaziruuna al uxra toog di xaar weneen waxtu farata hadis bi axrajahu ibnu maaja ibnu maaja moo génne hadis bi mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés dafa musa toog ak saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain mu daal di leen yéggee xibaare leen nouvelle bu neex ju mel ni keneen ku moom xamu ko keneen ku dut moom sañu koo wax sallallahu alayhi wa mu daal di baaxe saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain waaye nouvelle boobu mooy roggalaat di wàcc ba ñun tey jii ñu jot si ba buñ fi jógee ko ñeneen ñi ñëw dinañ ci jot ndax nouvelle bi umma bi xeet bi ñooko ko moom ke leen ko baaxee mooy ki leen yiw ki leen yéenee jàmm ki leen yéenee xéewal ba nekk ca arjanna ki leen yéenee jëlee leen ci lendemaayu seytaane ak réeralaate kat ba mel ni seytaane yóbbu leen ci leeru yàlla ak ci njubub yàlla moo ñu baaxee information bi wala xibaar bi wala moo ñu bëgg a message bi nga xamante ne moom la bi làmboo nañ leen bokk déglu la yonent bi bégalaate ci xadis bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ubashiru ma ngi leen di bégal na ngeen kon ubashiru ma ngi leen di bégal kon na ngeen doon ñu bég haada rabbukum kii di seen borom de qad fataha baaban ubbi na buntu joo xamante ne min abwaabi samaa'i ci buntu asamaan yi yubaahi bikumul malaaikatu yàlla ngi nii di won malaaka yi di leen présenté malaaka yi yaquul yàlla ngi ni di wax malaaka yi ondoro xool ondoro xool leen ila ibaadi sama jaami qad qadaw faridatan joxe nañ julli wa hum yantadiruuna al uxra nu toog di xaar beneen farata mbokk yi kon yow mi julli timis ngalla waaye diggante timis ak gee dee temps bi ko na toog ci jàkk ji yoreel sa téere di nab-nabi nekkal di déglu fàttali ba imam bi di fàttali diggante timis ak géewe su nga bokk ci ña yàlla di présenté ci kanamu malaaka yi su boobaa nga bokk ci ña yenentu bi ne bégléen yàlla ubbi na buntu asamaan ci buntu asamaan yi yàlla ubbi na fa benn buntu joo xamante ne dane malaaka ne xool leen maa leen di présenté sama jaami joxe nañ farata ba noppi ñu ngi toog di xaal beneen farat bi ci diggant bi na ubbi sa téere alquran di jàng ci diggant bi nanga nga déglu ka taxaw ci kanamu mbooloo bi di leen fàttali lenn ci suñu mbiru diine moo xam ci kawteefu yàlla la moo xam ci njàngale yonent bi la sallallahu alayhi wa moo xam ci amalu saalix bañ doon waxtaanee ba tax na noonu la sante yàlla ci gannaaw bu jullit bi joxe farata toog di xaar weneen farata ci diggante bi yenent bi nee na yàlla day ubbi buntu asamaan ci buntu asamaan da ciy ubbi benn bunt mu ne malaaka yi ne xool leen sama jaami julli nañ farata tel noo ngi toog di xaar weneen farata xool leen sama jaami julli nañu fajar ñu ngi nii toog ci jàkk ji di fàttalanteg ñoomineen seen diggante di xaar weneen farat ci diggante bi boo génnee dem ci bureau ba waaye sa xel mu ngi ci julli tisbaar dañ laa boole ci kuréel woowu yàlla di présenté ci malaaka yi ci diggante bi boo génnee dem ci tool wa waaye sa xel mu ngi ci julli farata tisbaar yàlla dalay boole ci kuréel woowu muy présenté malaaka yi ci diggante bi boo génnee dem fa ngay sàkkoo ca wërsëg di sàkku la ngay dunde waaye ànd ak loolu sa xel ak sa xol mu ngi julli tisbaar yàlla dalay boole ci kuréel yooyu muy présenté malaaka yi waaye diggante tisbaar ak takusaan noonu la ko yàlla di defee waaye diggante takkusaan ak timis noonu la ko yàlla di defee subhaanahu wa taala waaye noonu la koy defee tamit diggante timis ak géewe kon yow jullit bi jëlal sa temps nga di ko consacré ci li la fa ngay sàkkoo yiw jëlal sa temps nga di ko consacré di ko exploité ci fi ngay amee yiw yiw jooju noonu nag bokk na ci lañu yàlla buur bi tabaraka wa taala wax ne bokk na ci samay kawtif man yàlla maa leen di faat jamono bi ngeen di suubu ci dee bu ndaw bañu na nelaw moo tax mu ne allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha buur yàlla moo yore kattan man-man bu toll ni moo leen di roof virusu nelaw jamono yu bakken yi di dugg ci dee bu ndaw ba tudd nelaw yàlla ne walleti lam fi fii manaamiha bakken joo xamante ne yàlla naru ko faat ci nelaw ba muy nelaw da koy bàyyi muy nelaw nelaw bu yemamaay ñi tuddee ko sëngéem ñi tuddee ko jayaxu nelaw bi ni yàlla moo koy roof nit boo ko buggee te yàlla roofu la ko du mun a antu boo ko buggul te yàlla roofu la ko mooy la nekkee su ko defee yàlla nee na may roof ki man ki ma soob ki ma bëgg nelaw bu yemamaay waaw waaye yàlla ne ba léegi bakken yooyu bu ñu suubu ci dee bu ndaw ba di nelaw nee na fa si lleti qada alayha al mawt yàlla mooy faat muy jàpp muy téye bakken bu mu sopp ngir mu dee ci nelaw boobu kon yàlla mooy programme bakken ba nara a faatu ci jamono ya bakken yi sóobu ci dee bu ndaw te mooy nelaw waaye neena na ba léegi sama doxalin ci sama coobare may def wa yursilul uxra ila ajalin musamma may delloo weneen bakken bi nga xamante ne maa nam mu continuer di dundu ba keroog la ma dexalantik moom bu jotee ma dal di ko jëlee ci kaw suuf si kon ñetteelu bakken bi yàlla nee na ci sama kàttan ak sama coobare man yàlla may delloo bakken boobu ci jëmm bu mu bàyyeekoo bi keroog may matalak moom waxtu ba ma dexalantik moom yàlla nee na nag ñetti bakken yi ak seen fonctionnement yi ma la joxañal nii inna fi daalika mu ngi ci la ayatin kawtif joo xamante ne li qawmin ñeel xeet ñoo xamante ne yatafakkaruun ñooy xelaat kawtifu yàlla na ko yàlla di déroulé subhaanahu wa kon yalla ñu yàlla boole ci ñi nga xamante ne dañuy am xel xelaat ba ñuy xelaatee na kawtifu yàlla di déroulé ci seen bopp wala na kawteefu yàlla di déroulé ci kawnu bi mooy ci monde bi wala ci aalam bi amin ya alamin mbokk yi yan na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yéen a ngi fàttale ko woon ñu ngi yemoon ak yéen ci amalu saalix di jëf ju baax bi nga xamante ne nit ki da koy épargnel boppam donte nit ñi seeni temps ak seen waxtu meeyuñ la mayu ñu leen ñu war laa épargnel jëf ju yiw balay njëriñ kon yow war nga war a mën a jël sa temps nga consacré ko di épargnel sa bopp la lay njëriñ keroog boo tëddee sa tiraayu bàmmel yéen a ngi fàttaliku ñu ngi yemoon ak yéen ci saar ba nekk aaya ba nekk ci suratu ruum fa borom bi di waxee ne man kafara képp ko ñu xéewalal xéewal nga weddi fa alayhi kufruhu yow la concerné sa weddi boobu nga weddi yow la bu ñuy pinir keloog bés pénc yow dong la ñuy punir ndax yow yaa weddi xiwal bala yàlla xiwal waaye mu teg si ne waman amila saalihan képp ku jëf-jëf ju baax jëf ju yiw nga sellal ko ngir jëm yàlla fali anfusihim yamhaduun yow yaay ki laltaayal sa bopp jëf ju yiw joo xamante ne boo ko fekkee ci laltaay bi nga laltaayal sa bopp di nga am contentement bu toll ni dangay xam ne ndekki jëf ju baax moo jara jëf fa la ñu yemoon ak yéen tey incha allah ci suratul gaafir ñu dugg ak yéen ci aya ba nekk ci suratul gaafir buur yàlla ndegem mooy buur bi nga xamante ne moo dëkkee di jéggal jaami moo nekk xaafiru zanbi qaabilu taw moo fi nekk di aji jéggalaa koor joo xamante ne moom dong moo fi nekk di effacer rek waaw di effacer rek keneen du ko def ku moom pouvoir boobu joxu ko kenn moo ko yore te ci moom la nekk mooy jéggalaa koor joo xamante ne moo fi nekk di jéggal ilal abad waaw chef d'état du jéggale premier ministre du jéggale borom alal du jéggale chef d'entreprise du jéggale boroom xam-xam du jéggale yonent du jéggale malaaka du jéggale woliwu yàlla du jéggale yàlla moo fi nekk di jéggale jéggalaa koor bi moom dong la subhaanahu wa képp ku nar ci ñi leen ñi ma tuddal nii day fekk yàlla jox leen ndigal ñu daldi di waaye yàlla suñu borom tabaraka wa moo fi nekk di aji jéggalaakoor bu mag bi kon bu ñu demee xool ci suratul gaafir dinañ fa fekk buur yàlla ne man amila sayyi'atan fala yujza illa misliha bur yàlla ne képp ku jëf-jëf ju ñaaw kif ku fi jëf-jëf ju bon duñ la fay lu dul lu toll noonu nga jëf xanaa du ñàkk am na kuy laaj buñ lay fay lu toll noonu ak sa lu ñaaw loolu nga jëf ñaar lay doon dañ na laan déedéet fii nuñ ko mën a déggee mooy lu ñaaw loolu nga def yow doomu aadama buñ lay fay loolu lañ lay fay yaa ko andi dañ la koy delloo yaa ko fi teg amu fi palaas yow lañ koy delloo dañ la koy tiil rekk te tamit ci mbaaxu yàlla boo tuubee jéggalu mu effacer la ko mbaa du sax du ko soppi defal la ko yiw ah kañ aw ah kañ nii lañuy ñuy déggee maanaa aaya kon buur yàlla ne man amila sayyi'atan képp ku def lu ñaaw képp ku safaanu lu baax képp ku jëf jëf ju bon fala yu yujza déet ñu di la fay illa misliha lu dut lu toll ni loolu nga def lu ñaaw loolee te boo tuubee jéggalu mu doon lu sincère ci yow mu doon lu dëggu ci yow est-ce que yàlla bu ko effacé ba noppi du la ko soppil defal la ko yiw ndax moo ne man yàlla képp ku tuub tuub bi nga daldi jéggalu rëccu langa nga defoon ci lu ñaaw yàlla dina la effacer sa lu ñaaw loolu après mu soppil la ko defal la ko xasanaat mooy yiw waaw moo tax mu ne man amila képp ku jëf sayyi'atan lu ñaaw falaa yujza deet ñu di la fay illaa bi loolu nga jëf ci lu ñaaw waaye nag waman amila saalihan képp ku jëf lu baax min dakarin moo xam ku góor la aw unsa wala moo xam ku jigéen la wa huwa muminun fekk ku doon jëf-jëf ju baax jooju bum mu ko doon jëf dadi ku gëm yàlla wéetal yàlla bokkaalewul yàlla ak dara ngistal bokkul ci jëf ju baax jooju muy jëf yàlla ne fa ulaika ñu mel melokaan wi yadxuluuna aljannata ñooñu la yàlla di tàbbil këru xéwal ba nekk fa moom ci arjanna yurzaquuna fiiha yàlla nee na ñooñu lay wërsëgal bi xayri hisaab wërsëg bi nga xamante ne duma att si ñoom dara duma leen att ca la ma leen wërsëgal du ma choisir lii laan di wërsëgal du ma leen wërsëgal lii wërsëg bi daa dama leen koy buux di leen ko sottil di leen ko baaxe ñuy bànneexu ci wërsëg yooyu yàlla na képp ku mu war a wërsëgal ci këru xéwal ba nekk fa moom di arjana bul imaginer wërsëg jooju ni muy mel nit àddina yi ñoo lay recevoir seeni dëkkuwaay ñu yombalal la wërsëg ja ngay bànneexoo ba nga doyal waxatuma la ki bind nitu àdduna yooyu teraanga yi ñu yore ki leen ko jox mooy yàlla loolu ñu nekkee ku leen ko nekkaloo mooy yàlla loolu ñu yor ku leen ko jox mooy yàlla yàlla woowu nag bu la ne képp ku jëf-jëf ju baax muy góor di jigéen fekk bi mu ko doon jëf da di aji yàlla wéetal na yàlla bokkaalewul yàlla dara gëm na bés pénc yàlla ne ñu dund dund win wii ñooñu lay dugal këri ba nekk fa mandi di arjan bu ñu duggee nag la ma leen fay terale mooy yurzaquuna fiiha bi gayri hisaab man yàlla maa leen di wërsëgal joo xamante ne amul dara lamaleen ci atte yow lii nga meloon lii laa lay wërsëgal yow mela woloo nii du ma la wërsëgal lii déedéet loolu amul ajjana de yàlla du doxale noonu ci biir ajjana de moo ne bi xayri hisaab waaw du ma atte kenn ci la mu nekkee woon du ma atte kenn ca la jëf dama leen di buux di leen dottil di leen sottil di leen sëmbërtal xéewal ya nga xamante ne moom la leen di xéewal mbokk lii du histoire ba ñu ci keneen walla ci feneen lii aaya alquran boo ko jàngee dégg ko boo ko xoolee gis ko boo ko vérifier boo ci defee recherche xam ko su ko defee bu dee danga koy gëm nga gëm ko nga texe ku ko ñàkk gëm tamit xamal ne suubu nga ci yow ni texe di ji nga xamante ne amul kenn ku sànk kila la raw waaw yaay ki gën a képp ku sànku ndax yàlla bu fekkente ne la nekk fa moom ak ñamuy jëflanteel ak namuy jëflanteel jëfkatu yu baax ñi ñu doon jullit nga jël wax jooju gëm ko texe nga mucc nga waaye képp ku si am yeneen xalaat yu wuute gëm ko ak topp ko a ah, yaa ngi géemu ubbil sa bopp buntu cànkute boo xamante ne amul kenn kuy sànku ki raw sa jëmm ci yaay ki sànku képp ku sànku ndax yàlla wax mu leeralal la yenentu bi daldi la ko feddelil nga commencé di am dut ci loolu afillaahi chaqun moo ne ba xam dangeen am dut fa yàlla tontu bi mooy déedéet waaw kañ kenn warul am dut fa yàlla kenn kenn warul am sikki sàkk fa buur bi nga xamante ne boo xëccee sa nooy moom la neex boo ko dugalee moom la neex boo wàccee sa nooy moom la neex boo demee bay am sikki sàkk ci buur woowu kon yow xamoo sa bopp xamoo xew ndax organe ya ngay xalaatee moo la ko baaxee organe ya ngay jëfandikoo moo la ko jox te jëndoo si benn ba doomu aadama bi di jaay dañ ko falsifié deuxième copie la du original bi am na moment yoo xamante ne day yàqu te du mel ni la yàlla créé mu doon lu original loolu képp ku koy xalaat sa jëmm boo amee dut fa yàlla kon yow bàyyi may sax ñoo la tane ndax ñoom yàlla joxuñu leen xel ànd ak loolu ñoo ngi doyloo la leen yàlla wërsëgal waaye yow mi yàlla jox xel nga commencé di am dut ci téere yàlla ak ci yonent yàlla bi parce que yow yaa xamut lu xew kon yàlla ne man amila sayyi'atan képp ku def lu ñaaw fala yujza du ñu fay illa mislaha lu dul lu toll ni loolu mu def ci lu ñaaw waaye nag wa man amila saalihan képp ku def lu baax min dakarin aw unsa moo xam ku góor la walla ku jigéen la wa huwa fekk moom muminun bu mu doon jëf-jëf ju baax ji dadi aji gom yàlla yàlla ne fa ulaayika ñooñu ñooy ñoo xamante ne yadxuluuna aljannata ëllëg bis pénc ñoom lay tàbbil kër xéwal ba nekk fa man yàlla di arjanna yurzaquuna fiha bi gayri hisaab ñooñu lay dugal këru xéwal ba nekk fa man di arjanna ma di leen xéewalal foofu xéewal joo xamante ne duma ma àtte si ñoom dara ci xéewal yooyu ma leen di xéewalal kon xéewal yàlla fa arjanna la ñu yonent bi wax rek ñu doyloo loolu inna fil janna maa la raat am na xéewal ya yàlla programme ci arjana lu bët musuta gis wala uzunun samiat lu nopp musul gis wala xadara ala qalbil basar amul benn xelu doomu aadama bi ko mun a imagine ba takk ko ne lii la kon xéwal boobu mooy lan allahu wa rasuluhu aalam yàlla ki yonentu mi rek a xam xéwal yooyu mooy yan xeetu xéwal kon mbokk yi képp ku bëgg jot ci xéwal yooyu dal dëkkee jëf amalu saale yàlla ñu yàlla xiir ci jëf ju baax yàlla ñu yàlla xiir ci boppam waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi